circulé ci TikTok bi yàggul dara mu di ci wax. interview ku rey dañ la war a rey la ku dañ la war rey parce que nag koo gis rek ku dee bàyyi mbébét ku dee bàyyi projet amoon na mbébét keneen ak keneen ku ñu rey tamit amoon nga mbébét waaw mais ñu ñuy rey nañ ko arrêté nañ ko arrêté ngir yàlla. soo sax parce que comme li ma la wax. Muhammad xayrul aalamiin wasiilati jërë ngeen jëf bokk internet yi comme niñ leen ko waxee ba tey ñu ngi fii ci diwaanu ginnaaw raay ñëw ci naqar bi nga xam ne àdduna jamono ji ñëpp ko mankoo alors ki ma taxawee nag yaakaar naa ni ki ma taxawal kenn dootu ko présenté muy Boga mbay moom itam doon ànd ak Aziz balaa di def culture maanaam di fecc di ko def ci euh, anam bu mucc ay Boga maa ngi leen nuyu ginnaaw bi ma la waaw ñoo ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp tamit di bokk ak ñépp naqar bi waaw di wax ne senegal yi ñëpp ñëw ñu ñëpp ñoo ko gisandoo la xew waaw la xew ñun ñëpp ñoo ko gisandoo te lii war na fi mën a jóg fekk nit ba ci biir këram ray ko war na fi mën a jóg waaw ku nekk nag am nga droit bëgg a stable surtout ñun artist li ñuy daj dafa metti fecc dafa métti bu dul fecc bi wax yu ñaaw yi ci mbedd yi rek day stressé doomu aadama kon kenn ku nekk am nga droit boo amee moyen bi nga dem loué ji appartement fooy noppali ko du pour bon moo tax. très bien waaw ah, di wax ne nag lu ci waay di wax na nga ko xam lu ci waay di wax na ko xam ndax moom la tey ëllëg keneen ak keneen lay doon te ñëpp dañ koy fekk ji ku ko mën a ñaanal ñu ngi lay sàkku nga ñaanal ko te yàlla rek tax ku ko mënta ñaanal nga téye sa waxukaay loolu la ñu soxla. ku ko mën a ñaanal nga ko ku ko mënul nga téye sa waxukaay dañuy noddu tey moom la ëllëg man lay doon yàlla na yéex mais Aziz nitu yàlla la waxtu daaw ko raw barki Seydina Mohamed ku dee ñu ber la julli fu mu mësaan a jot Aziz lu jàpp da koy bàyyi dem julli ba pare doog a continuer ci li mu nekk nit boo xamante ni nag la amul lu dul bëggul lu dul daal na ñëpp nekk ci jàmm na ñëpp feex Aziz doo ko gis ci ñàkk fayda doxul ci daray waya waya waaw lu ci nit mën rek te di ko dim te di ñu ko dimbalee mooy nga ñaanalool ñu ko yàlla ko yàlla xere ji àjjana. ak Aziz naka la demee woon. man ak moom bi ñuy ànd boobu feccu ma moom feccu dañu yàgg depuis xale la parce que ginnaaw raay bi dama ko doon def ak géejawaay comme bonjour ah ba yàlla boolewaat ñu ci milieu art mu naages trop su gisee turu fu ma mën a amee danaan ma ñëwal nga taxaw nga am keneen ak keneen noonu Aziz dem na ba Aziz mënoo ki kii ak kii ñoo fixé ci moom ñooy groupe am fixe ku ma àndal tey bu subaa ma ànd ak keneen xam nga lan la ci jublu pour ku nekk am loo mën a yóbbu sa kër loolu la ci Aziz jublu pour très bien pour ku nekk mën a am loo yóbbu sa kër rey nañ nag jàmbaar rey nañ koo xamante ni xeexkat la man leer na ma ne ki rey Aziz Aziz da ko accueillir da ko accueillir parce que dafa bëgg affaire fans man ak moom ñoo yem foofu dafa bëgg affaire fans moom boo ñëwee ci moom day yaakaar ne yow bëgg nga ko Aziz moom na reetaan rek mu yaakaar ne bëgg nga ko yàlla na ko yàlla gaaw a nit. ndax gis nga ko boobaa. Euh, pour corps bi no gisuma ko parce que bi ma yegg ci moom boobu fekk na sappoor ñu ngi taxaw police ñu ngi taxaw man dama ñëw rek bëtt barrage benn policier moo ma téye ne kii ki ma àndal na ko ñëw téye noonu laa ko yëgee. lan nga mujjee dund ak Aziz parce que nag frère nga ci moom ah frère nga ci moom wax dëgg neex yàlla question bi ñu lay mujjee laaj mooy lan nga mujjee dund ak Aziz ak lan ngeen mujjee waxante a ah, xanaa mu invité ma këram non non kër Naboulaye mii laa ñëw Naboulaye laa dem këram fekk Naboulaye toggal ko mbaxal mbaxal bu tooy. la ko Nabou Leye toggal ma yegg si juste jaar fa Nabou Leye ne ma exact Aziz laay toggal mbaxal nañ dem ñu yóbbaale ko ma ne ko Nabou Leye daa am fu may dem maa ngi yor sachet dama doon génn Nabou Leye ne ma nañ jam forcé ma dugal ma ci otoom mooy vidéo bi circulé ci. ñuy gis si TikTok. TikTok bi voilà léegi ñu ànd ma nag Nabou Leye ñëw fekk toog tuuti Ndeye Yirim woote ñu ne ko jëlal taxi nga ñëw Ndeye Yirim jël taxi ñëw kii biñ ko woowee daf ne dafa siburu mënul ñëw ñu nekk fa ambiance waxtaan ka foore ñoom dama leen di daaneel. dafa leen di daaneel après loolu la ñu dund comme lu nice après téléphone rek lañ doon déggante waa. téléphone bi ngeen ci bi waaw booy nam naa la ma ne ko maala raw naka aar bi mbaar yaa ngi waaj màggal gi ma ne ko waa incha allah pare nañu dinaa ñëw nga jox ma sama paasu màggal parce que dañu am xarit boo xamante ni ñoo fowandoo mu ngi Amérique Pape Medina daf ñuy dugalal chaque année li muy dugal dina war a mat 500000 ñëpp la koy tasaare. ñëpp xaritam bu nekk ami d'enfance mu ne mu jox la vingt cinq mille trente mille vingt mille ma ne ko sama paasu màggal mu ne ma waa maa ngi koy ma ne ko dencaaleel ma yow tamit li ma war a jox parce que moom bu ma mësaan a jox sama xaalis ba pare da ciy teg même bu dee dix mille francs da ciy teg même bu dee dix mille francs parce que loolu sama diggante ak moom dama koy saaga ndey sax ne ko teg ko ci mu wéef ma lépp loolu lañu ñu mujjee waxtaan man ak moom. sa xarit dem na ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko xaaree ko aljanna ndax témoignage yi ñu fi dégg ñun wax dëgg neex yàlla daal na xel sa xarit nga daan ko gis ngeen di kafandoo foo reetaan nga xëy ñu ne rey nañu ko en ce moment lan ngay sànq. ah loolu xanaa ñu bàyyi justice def seen liggéey parce que li tax justice war a def seen liggéey mooy kanam fii koo laal la gis mbokkam dafa am ñoo xamante ni balaa ñuy mën a wax si yoonu justice rek dañoo laal seen mbokk gis nga vidéo bi rek Aziz Aziz amul violence Aziz boo boo ko saagaan day sax xulli ko say bët mu daw baa la fa man noonu laa ko doon nappee depuis ñu nekk xale noonu laa koy nappee su ma soxlaa dara ci moom dama koy saaga ndey xulli ko samay bët dama yow baa doola nga rek buñ ne nga génnee sa jikko bi bu ma joxee ma ambianceal ko mu reetaan dund ñu dara loo xamante ni lu inconvénient amin amin amin merci beaucoup ayca ba tey mbokk internet yi kàddu yu njaal yi nga xam ne rek dañu koy séddoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbokk ci Aziz Dabala ki ñu toogal di magam ah, ñu fas yéene ko nuyu waaye jaale ko bokk ak moom naqar bi euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la jaale bu baaxa baax sa rakk ji nga xam ne yàlla suñu borom moom na ko tey. Ah, leen di fay di bokk ak naqar bi di leen ko jaal yéen tamit ndax Aziz Azizu àdduna bi yëpp la waaw ah, àdduna bi yëpp la lu ñu bett ngi nii nag. lu ñu xalaatul woon dëgg la sax nag dee ñëpp a koy def waaye séntuwuñ ko woon léegi ñi ngi doon xaar ci moom mu xëy di takk jabar ndax mu ngi yor yaayam yor ay magam ak ay rakkam lu mu am daf koo bokk ak ay mbokkam lekkul dërëm bàyyi kenn man barki démb audio yi mu ma bàyyi semaine bi passé ba tey biñ ma waxee affaire dama dama dama dama doon dégluwaat audio yi. parce que daf ma bett daal dama ne mënul nekk mënuma ma ko woon gëm ba bi ma egsee fii laa ko gëm. lan wax ci audio. parce que dama koy envoyé audio mu naan ma mag ji parce que man yaayam moo ma yar sama yaay moo topp ci yaayam man fii laa yaroo ci kër gi. Aziz nekk xale bu baax xam nga mag ñi dañoo amoon jom ba pare dañu nangu njaboot ñun euh, liggéey dañ ko tàmm ci suñuy woy jur ndax loolu lañ ñu jàngal Aziz yaayam da daan takk ndox rangale ay frigoom Aziz yërëm yaayam moo taxoon da daan jël paanu ndox mbuusu gal mbuusu ndox ñaar dërëm moom lañ ko yaayam doon defal ci paan mu jël ko dem jaay marché jaaro yi su bëggee jaay mi gaaw sax dafay nekk di ambiance dafa mës a cinéma pour njaay pour pour ndox mi gaaw jeex mu daw si ñëw yërëm yaayam xam nga ne xale bu góor jamono tey nga takk ndox mu sedd ne ko am demal jaay lu doy waar a ngi noonu xale bu yërëm yaayam xale bu nangul yaayam xale bu nangul yaayam xale bu nangul ay mbokkam Aziz bu la gisee bu la nuyoo tànk kottu la waaw il faut mu kottu la bëgg nit jàppaleen ko foofu dafay gaañu de dafay gaañu foofu de métti looloo tax Boga yëkkati kàddu yu mel nii ah Boga nee na ki ko rey da koo ñëwee fans. da koo ñëwee fans mm, na nekk ndax Aziz amul noon mu ñun pour ñun amul noon ndax koo xam ne boo ko séenee bëñam ngay njëkk a gis mag ji dalay kot bi ma mujjee gis rek daju frère daju euh, jëkkëru sëram sërëm bu mbokkal ndey ak baay jëkkër moo gaañu mu ñëw ci dëj bi nii la ma kottee mag ji. ma daal di génne sama téléphone wan ko benn foto yaayam bi muy nekk rek comme toll ko man jeeg rek wan ko photo mu ne ma eh, mag dimbali ma rek jox ma photo bi envoyé ma ko ma ne ko waa naa ko envoyé ma envoyé ko sama photo yaay bi mu ne ma envoyé ma sa photo ma envoyé ko sama photo mu ne ma ñaari yëpp laay boole def ci lu rafet ma ne ko waa baax na ñaanal ko encouragé ko parce que sama rakk la mu ko ñaanal di ko encouragé ni ko góorgóorlu métier ku nekk ak la yàlla xiir li la yàlla xiir nag bu dee dawal mbege sax fexeel jël ci pay toujours loolu lay wax ak moom waaw amin yaa rabbi amin ki def li Aziz Dabala Sénégal la rey parce demul kër kenn Aziz këram la toog fréquenté kenn Aziz ñun rek ñun rek ñooy xuus dugg këram Aziz kenn du dugg këram maanaam appartement kër gi mu dëkk appartement bi ci kaw mën la ko utal billaahi kër gi mu dëkk mën la ko doon utal ki def lii nag yàlla na ko yàlla ki def lii du inconnu de xaw ma nag lan la mais ki def lii yàlla na ko eh, ki def lii <laughs> Hmm. Maguette. yàlla na ko yàlla bi man man mënumaa wax lan laay wax. xaw ma sax lu may wax. Maga Seck doo bàyyi li ngay def yow tamit indil nga fi ñu ñëpp problème bàyyi li ngay def bàyyi li ngay def. eh Fatima eh bàyyi li ngay def. ma yëgoon dem toggal ko. su ma yëgoon dem toggal ko. ay waay ca mbokk internet yu Dakar live mu ngi noonu euh, naqar la wax dëgg neex yàlla metti na euh, ndaw si toog moom euh, tàggalikoo na ak sagoom day toog moom kase di wax ndax métit bi ndax nit kat bu ñàkkee bakkanam bu feebaree nga génne ci sa xel waaye koo xam ne dara dalu ko ñu faat ko ci anam bu doy waar Ndeye Gueye ñu ngi lay masaw bu baax a baax di la jaale li bokk ndax bokk nga ci ñi nga xam ne danoo ñàkk ku ne xamoon na diggante Ndeye Gueye ak Aziz Dabala ah boogaa ngi noonu dëgg neex yàlla kenn mënut a uh, téye sa morom. yéen ñuy defal rek waaye yéen ñëpp dañuy di ñibbi lii dafa métti waaye wóor na lii dafa métti. <laughs> Ndeye Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaale Mass wax ji nag dina metti lool liggéey bi sax dina jafe waaye lépp rek pour képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi rek nga ñaanal ko dëgg neex yàlla metti na ah, deme na ci ci ndaw demee na ci ndaw Ndeye Gueye ngi noonu kenn mënu koo téye ah, jigéen ñi wax dëgg neex yàlla ñoom ñëpp fi dañoo waaru ndax déegu bette déegu metti ki ko def nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nit ko ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gaawee Ndeye Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di la di la masaw di la jaale yàlla gis nga xale yëpp sama kaw la ñëw fi yàlla rek maas maa ngi lay nuyu bu baax maas moom dem ba tey ñoo nekk nekk ci amet dem tey ñoo nekk yàlla ko yàlla nit ki def li Ouzin nekke sa doom noonu la Aziz xuloo ci association bi comme man damaa bari soir laajal Cheikh Faram Fall su ma daan xuloo dafa ma daan woo ci suuf su may kaas daf may woo ci suuf ay déggee waaye li ngay def defeel nii ak nii te maa ko mag téeméeri ci nuyoo mais am na respect bu doxoon sama diggante ak moom yaay rek ndéggee tere raar bi laa koy dégg laa ku la neex xale yëpp yaay lañ may wax ñun ñëpp gisoo ñoom ñëpp sama kaw lañ uuf ñoom ku ci ñëw sama kaw ngay dal ay dabalaa kii moomu ko indiloon boogaa su ma amee programme mu ànd ak man dem fecc xaar sa xaalisam ki def lii tas na yaakaaru famille yàlla baax na yàlla baax na amin amin amiin ñoom ñëpp la man xale yëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp fecckat yi ngay gis fi ñëpp ñoom ñëpp billaay ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp gisoo suma xewlee ñoom ñëppay ñëw lu waay jàpp da koy bàyyi ah xëy na yàlla nii la ko bëggee woon yàggul kii moo dem këram kii moo fa demoon boogaa moo fa demoon matu matu sax cinq jours boogaa moo fa demoon boogaa ne ma Aziz dafa xaw a feebar ma ne ko dinaa ko seeti mu ne ah, ma ndéegee la moo tax gisuma la boobu ba tey dag ma baay ma ne ko dinaa ñëw seet la di ko tooñ la naan ko sëy bee ma jàpp rek mu a ah, ma sëyal ba dee de barke sëñ Touba naan ah, ma sëyal ba dee de naan ma référence nga laajal kii boogaa ngi ni mooy sama seede référence nga loolu rek la may wax ci man la gisee kii bay ànd kii di yóbbu kii ay tournée ñu koy fay jëmm ji ki sama doom la buy dem fu muy dem Nabou Leye lay àndal ak kii ak Ndeye Khady ah. man dem ba tey nag wax dëgg yàlla jooyu ma man maa ngi nii di soog a di soog a jooy parce que bi ma xoolee yaayam rek metti na lool mbokki internet yi topp dakaar live mi ngi noonu Ndeye Gueye nee na kàddu yi nga xam ne mujj na koo wax ak Aziz balaa moo di rek dafa tëddoon feebar mu war koo seeti Aziz woo ko ne ko maa ngi lay dénk li ma lay dénk nag mooy sëyal ba dee sëykat nga muñkat nga maa ngi lay dénk nga sëy kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne waaw boogaa mbay ah moo jël téléphone woo ko mu wax ceek moom ne ko sëyal ba dee kon nag dëgg neex yàlla ci jihaat la génnee àddina moom am nañ ci moom njoxtu bu rafet ak nu mu mënti demee bàkkaat toppatu ko kon ñun ñooy jooy rek waaye Aziz mi ngi ci mbégte jamono ji ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko aljanna